Euh, sax wàllum politique bi ak euh, Diégui Diop li ma ciy bëgg wax rek mooy est-ce que quelque part la gendarmerie euh, de Kër Massar dégg na la dernière fois maam Birame li nga doon wax ci mbirum la Diop ONAS jël l'ONAS du moins jël nit convoqué ko ci ay détails mu génn nga may ko benn turbine mi victimisé wu est-ce que quelque part jaroon na quand même pour ay passation de service ñi koy mettre au devant de la scène ba muy wëlbatiku di naan que victime la ou pas alors que am na ay rapports yoo xamante ni dañu cité turam te tôt ou tard wuy ji yoon parce que man dama xëy kay tey di def revue de presse gis benn ñaari journaux mu nekk à la une oui man je me suis ndax dafa dox ba yéeg ci kaw une journaux yooyu wala naka la def kepp kepp kepp parce que quand même loo xamante ni kañ la moom barkaat barki démb ñu koy à une tey te loo xamante ni daanaka amul benn sens moom dafa avant ñu koy nommé la anticiper avant ñu koy dégommé la anticiper dal di démissionné oui war a de service mu déserté da du ko def mhm. je je peux comprendre quelque part que état bi affaire boobu métti leen ba ñu jox ko euh, euh, mise en demeure ak yooyu ba ne dañ koy convoqué mais man jàpp naa ne femme boobu bu ñu demoon ba di ko convoqué. oui oui warul nekk pour mu def euh, passation de service tout simplement. bu ma juumul tudd nañ ko ci ay. nébuleuse grave des centaines sans facture koy yu mhm. ñu jëlee koo xamante ni ay centaine de millions la ñu koy jiiñ nga bëgg koo convoqué ci loo xamante ne nii lu ndaw la c'est comme Mansour Faye ak ak ak ak ak Mimi Touré mhm. parce que Mansour Faye mhm. jàpp ne bu plainte Aminata Touré su ne booy yoon jox ko dëgg li ñuy mooy Mansour Faye kat dañ ko doon tuumaal mais li ñu koy waxal yépp dara amu ci la femme là également loolu lay def bu demee bu nekkee même si quelque part la mu newoon du ko def ba mu fa demee ba ko policier gendarme yu xullee dana dana ko def <laughs> mais dafa génn victimisé wu di wone comme quoi que ne moom lenn loo xamante ni dañ ko ko toppee parce que jàkkaarloo naa takk yi génn na ma ngay ñibbi mm-hmm. alors que ñëpp xam ñu ne les dossiers ne sont pas pareils. effectivement donc moom am na loo xamante ni def na ko fi mu mu ne weng ñu dem ba journaux yi jot ci yaakaar naa ne suñu demee ba di ko convoqué. oui même bu nekkee pour mu defi passation de service. Mhm. également yooyu nga xamante nii def na ko. war nañ ko cee war nañ ko cee laajaale. Mhm. en tout cas dëkk bi moom eh, ñenn ñi eh, quelque part dama jàpp ne li leen gënal mooy. ñu jàpp leen. ndax yaa wax lii oui plutôt que ñu jàpp leen ndax yaa jël. effectivement faute de gestion euh, maa ngi dégg waxtaan ak sa benn waay rek mu naan ma mais waa ji moom nga xamante ne nii dafa mel ne day xëy suba ba ngoon jot di tuite. lu ñaaw lu ne mu yegg ko pouvoir gars yi luñ ciy xaar. <laughs> ma ne ko sa ça yi Euh, moo jiite réseau des journalistes francophones la xawma bu ko gars yi ne kirtim sur euh, euh, pour délit d'opinion ñooñu ñëpp lay alerter ñu naan Sénégal dañuy jàpp nit ñi parce que comment dire liberté d'expression amatu fa yooyu alors que ki nga xamante ne nii mooy wax di def loolu def na fi yu ne weng yoo xamante ne nii mais pour ñu topp ko ci ba indil ko ay jafe-jafe dafa yomb. effectivement tout simplement. léegi nag na gars yi comprendre loolu bàyyi ñenn ñi ñuy wax en tout cas ba à une certaine te dossiers yi nga xamante ni ñu ngi leen ci topp. te ñu mhm. def ko. non pas a euh, au au président wala au premier ministre mais ñu def ko. au sénégalais parce que ku fi jël denier yoo xamante ne nii moomuloo ko. Mhm. askan wi nga lor. effectivement loruloo Diomaye euh, loruloo le premier ministre. Sonko d'accord yi nga ko def d'accord Théodore Gomis nuyu naa la depuis Allemagne ak sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi foofulee ca Allemagne euh, sous-préfet bi ma doon wax fële sa xoosanto la am na ku ma ko jox léegi waaw Euh, di ko jaajëfal bu baax baax alors euh, même question bi la euh, tey jii Georges Nessa bu ñu jëlee ay xamante ne anglais cité leen jàpp nañu ni dañ leen woo tôt ou ci yoon bu ñu leen teelee woo ci yenn mbir yi nga xamante mën nañ ko jàppee ay détails est-ce que du tax ba bu ñu leen woowaatee ëllëg ñu ni voilà état bi day acharné wu contre ñoom parce que déjà rek ñu ngi commencé di génn di wax di naan voilà dañuy acharné wu ay victimes lañu waaw xam nga am na am na ñoo xam ne peut-être que yaakaar ne bu ñu defee yenn sorties yi euh, pour se victimiser. Sénégal yi nga xam ne dañu am toujours une lecture au premier degré duñu comprendre. waaw mais c'est pas seulement Diégui Diop. Mm-hmm. il y a un monsieur aussi qui au ministère du commerce et de de bu amoon problème ak Cheikh Serigne Gueye Diop temps yële. Mm-hmm. finalement dans les projet des agri Oui. Le gars était remplacé, il a refusé. Oui. Bon, il, il, il... Moi, il contrat 8 ans. Wow. Moi, parce que moi, il a gagné ce poste-là suite à un... Mais si tu as gagné, tu n'as pas rempli le, le, truc là, le cahier de charge, tu l'as rempli. Madame, tu l'as tu en as pour vingt Oui. Bala boobu war nga fek nga réaliser lii ak li ak li. Obligation de résultat. Oui. Mhm. La banque africaine de développement mi nga xam ne moo financer le projet. Oui. bu jàppee ne que au bout de deux ans trois ans war na fekk waroon na fekk nga remplir au moins les le les cinquante pour cent au niveau des réalisations nga fekk tu en es à pour cent mais ton nouveau ministre tutelle bu ko neexee mu ne kii dama ko fi jëlee wut keneen. Mhm. et il il avait demandé l'avis de la banque qui a dit au ministre mais vous avez parfaitement raison de le remplacer. parce qu'à ce rythme là d'ici mille vingt huit il pourra pas faire le travail en tout cas il pourra pas réaliser. euh, les les les soixante dix pour cent de de son truc. d'accord de son contrat. mais alors waa ji nag <laughs> il se met là la ngaa musu benn affaire su ma pro contrat bi deux mille vingt huit lay jeex ensuite le poste c'était pas un poste politique mais c'est pas important même si c'est un poste boo xam ne dañ la fa nommé ma pour lan au niveau au niveau mondial sax dañ la fa nommé te tu n'as pas fait ton travail mais dañ la fay jëlee. Mhm. parce que tu avais une obligation de résultat. donc pour ñen yi c'est pas la peine de s'accrocher mhm. euh, pour cette dame là dont tu parles. man je pense que pour une passation de service kenn du ko woo sax pour loolu. Mhm. <laughs> man fi mu nekk nii su ma bokkoon si régime ancien régime Macky Sall. Mhm. bu régime mu Diomaye bu toogee rek fu mu nekk nii dootuma xëy suma bureau sax. damay toog di xaar ñun déggoo ma ma rek ma ne leen macha allah. defar say dossier teg defar say dossier teg defar sa sa kayit di def sa passeport de service. <laughs> di xaar sa secrétaire woo la benn jour nee la kaay signé lii nga ne indil ma ko suma kër sax ma signé. <laughs> mais dootuma fa sax teg tànk parce que xam naa tôt ou tard tu vas partir. xamul amul di nëbbatu Serigne mun na ko liggéey kooku am sa fini. xam nga ne yow buñ la fa bàyyi rek dañ la bàyyi en attendant sa bés mooy jotagul mais di nga fa dem. <laughs> Mhm. donc mieux vaut nga dal di defar sa bagage ba xam ne jour bi ñu la wooyee rek nga dem c'est un mercredi ngay constaté que yow c'est tout nekkatu fi. oui nga daal la naa demee bu ñu la nee def yéen faire la passation de service nga indi sa document yooyu yëpp daal di leen tegal ne leen it seen seen yëf a ngi nii. bu fekkee nag da nga def tooxi tooxi doole nag di wut ay des des des des comment on appelle ça encore là. ay prétexte pour montrer que oui ñii dañuy acharné wu contre comme ça bon voilà les le les sénégalais qui sont un peu euh, comment on appelle ça encore là dañoo bëgg a yërëmtalu quelque chose comme ça dañ naan ah non non kii de dañ ko yab rek wala quelque chose mais vraiment deful dara. mais ku ne xam na ne gendarmerie bu mu lay woo mais c' pas man c' la première fois may dégg ñu ngi diñ ko dégg gendarmerie parce que def passation de service. donc je crois que le problème non pension de service da ngaa mën a bañ. boo ñëwul ñu ñu ñu. est-ce que deful ay rétention document administratif bañ na. waaw mais gis nga bu bañee bu bañee. Mhm. bu bañee ne du ma ñëw. Ah, moo mooy ki ma la doon wax nii rek kii dañ ko eh, nekk sa contrat dañ dañ koy annulé. Mhm. mu dem bind lettre yi adresse ko au président la république Diomaye. kooku ne adresse ta à ton ministre mu jéggiwaat recommencé waat. Mhm. ministre bu nekk c'est vrai jeex na kaay def pension de mu bañ. parce que voilà mais kii aussi bu ko defee. en tout cas jarul sax dem seeti ko da ngeen ni daal def constaté li ngeen fa fekk rek bindal ko mm. rapport boo xam ne rek il sera maintenant obligé de venir répondre te kenn du ko jëli ajouté ko ci yeneen yi voilà <laughs> c'est-à-dire man je n'aurais même pas pris ce temps là di ko neexal wala kii muy yóbbu ay géwalam foofu moo koy naan yaay jàmbaar oui non da ngay def bi euh, le PV le PV koo xam ne constaté ko oui constaté ko mm-hmm. constaté son absence waxuma la kii de wax waxuma la oto bu manqué de mais chaise coussin wu chaise sax bu fa manqué nga ne ko bindal chaise bi su boppam moo dem. Mhm. ba nga xam nag ndax est-ce qu'il pour il pourra maintenant se se se se défendre. ndax bërëb bi ba passation de service mooy responsable parce que la passation ça lui permet. la passation xam nga du joxante loxo rek moo tax. du bon joxante loxo rek bu la neexee nga ne maam Biram may def ak moom passion de service tu pas besoin de lui serrer les <laughs> damay ñëw mu toog fële ma toog fële. mais y' a ah. y' a du y' a plus sérieux que c'est-à-dire ce que les gens voient passation. c'est loin d'être l'essentiel. Mhm. léegi dañuy toog wax waxtaan ba pare. toog mhm. a gëstu biti di di defan des euh, la di def des échanges de bons procédés. oui je remplace fekk naa militaire liggéey baax nag yooyu. mais ça c'est quand même important c'est une tradition républicaine donc boo ko bëggulee tamit comme je te l'ai dit rek nañ la on te dem def le l'état des lieux bu fekkee ne yow indiwoo oto bi oto service bi parce que am na ñu koy def. oui au lieu ñu dem yow yaa ngi ko def pension au de service nga bàyyi ko kër gi. Mhm. te nga xam ne dans deux jours après on va sera obligé de les gens seront de lancer un un truc des menaces pour dire que le véhicule Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo alors euh, bëgg naa ñu taxaw ci benn mbir euh, bu xalaat TV def.